xam nga fa. maa toog nii rek toog nii ci kër gi rek. maa ngi toog naka tàngaay bi. tey baa ngi nii rek ana bàcc. ci biir day dal. ah day dal koor gi tey daa xaw a tàng lool. eh tey dafa man xam nga bëgg tubaab bu ndaw. bu naanee ndox rek ma takk soxna. naan ndox fas waaw fas soxna. teelu takk teelu te naan ndox bi. ba juddoo ba léegi waaw ba juddoo ba léegi ñu naan koor daa teel daa teel li ma yëg fi mu ne nii. nga ba beneen ko te ñëw. beneen ko est-ce que ma fekk. waaye yow koy takk yaa Fatou ban la. Fatou Mbadiane Mbadiane mii ci kër Cheikh Ndiaye général. Fatou mu ndaw Fatou mu ndaw tuuti na de tuuti na de. ah tuuti de def na waaye Fatou moom moom laa bëgg. dëgg nga xool de. sama xol bi daal dama xam ne Fatou koy dekk. est-ce que Fatou bëgg ree aka yomb. ah aka yomb bëgg na. <laughs> man mi sax maa ngi lay dee. ah reetaan yow koo waxal mu reeti. ah loolu yomb na reetaan de moom. ay tafa takk jabar xam nga li ci nekk yëpp ci biir. limal ma dégg. dinañ la laaj bayu baay. waaw dinañ la laaj may bu njëkk. dinañ la laaj ay warugar. waaw un million daal boo ko amul jëru ngay. un million yi un million yi lan. ñaar téeméer sëñ Bladé da lay indi. koy may xanaa amuti mbokk. ñaar téeméer boo ko joxee def ca jàkka joxe can la. ki nga koy may xanaa amuti mbokk bàjjen mi ma koy may yërmaane dong la fees may bu njëkk nag may bu dëkk bu. loolu. xanaa xamu tubaab kon de bay boobu nga. réew ma ngeen réew ma ngeen nekk tubaab yi ñoom ñoom du takk day génn rek. la mariage mariage bala ñoom nga gis ku bëgg a 19 ans ba ba dem ba 40 ans doo ko mariage. <laughs> loolu da nga yaakaar da nga ko yaakaar rek. waaye dañuy marié ñaata nga génne bàcc ñaata. da ngay lijjanti nag loo war a lijjanti. ah eh ñaata nga génne bàcc ah eh, eh. la wax damaa ma ah, ah, eh, maaleykum salaam. eh am sëñ bi. ça va. waaw gis nga de maa ko oyofal nii rek sinon yaa ngi ci jàmm gis naa la gis yow dañ fi toj ci loo nekk yaa ngi ci jàmm xanaa bàcc buñ ci biir xaaral ma wala ko ku bëri problème yow la si koor ñu nekk te yow sax suur ngay def yoo xam ne kenn xamul yow yaa ngi yore xaalis jàmbur bi nu mu woo ko fay di parang parang loolu am solo lu sama yor xaalis nit yaa basi ba la yow ma koy jëflante ak bàcc la ma yow kan ma ko fi dugal loo koy jaay di jaay taar Moustapha yaa ngi jëma yaa ngi yaa ngi jëw so yaa ngi jëw de waaw kanaa kon bàcc damay tooge si biir kër gi fépp la tooge fépp ah fépp waaw loolu lu may lijjanti ak bàcc bu bàcc ñëwee nga xam ne moom na bu ca ka da nga fale boo ko faale ma bàcc ok faale woo ma lu gàtt rek ci laay wax ak yow sama xaalis laa soxla est yaa ngi may dégg bëgguma am ak yow benn problème bàcc damaa bëgg nga déglu ma. du ma la déglu. pourquoi du ma déglu. yow yaa am pour déglu ma. xoolal ñëw sa kër du tax bu ma waxee yow doo ma déglu. yow triant nga. waaw si naka. triant bu bon nga. buñ waxee ngay ñaan-ñaaral di lewetal ay bët mel ni góom bu bees xam nga lu ma bëgg. bàcc déglu ma déglu ma fii li ma la wax bu baax bëgguma am ak yow benn problème. nga am nga ko tey li ngay def mooy la. xam nga li may def. yow cinq ans maa yow ñu ngi liggéey. lu sama yoon. kon tey su ma jëlee sa xaalis mu dégg da nga war a wax déglu ma. mais triant nga triant nga. triant si comme comme si comme ana xaalis bi génn ko non même rek. mais ma déglu ma wax ak yow soo ma déglu doo xam fa laa dugg eh, a xale déglu te yow man ak yow day métti ah kii kii kii bëgg man ak yow day métti trop ah xool man fu ñu yem neex man ak yow day métti ah xool kii seetlu sama diggante lu ma ciy seetlu yow fu ñu jaar maa ngi yëpp fu ñu jaar ñuy liggéey ma lay jox xaalis ngay triande rek yow yow ah? at laa lekkal li ma lekkal dama ko mën a compter non bàcc yow xamee ma la de yow mii laa xamewul non yow gore woo quoi waaw léegi xam nga lan la maa la ko ñaan si tema non du ma du ma dem du ma dem rek si biir kër gi tax man ma wax ak ma dégg. non boo ñëwee sama kër da ngay wax ak man donc. ma ne naa wax ak yow comme ni mu def ba takk Fatou xam naa ko. eh yaa ma dugg sama biir dégg laa si dugg nag Fatou ba mu koy ngor xam naa lépp. waa maa la ko ñaan. su ngir yàlla. non dama man damaa wax. su ma eh, damaa nekk suba tey maa ngi dégg coow yéen ñaar waru dëgg yàlla waxal parce que seen bor bi bu dee problème mu bor boobu ngeen am le laa ko yoreel mooy ñëw di waxtaan ak moom si njëkk ak gaal. waaw mënumaa déglu dama yóoxu. lan laa koy dégloo dëgg la kii musul wersi xaalis bi ma ko jox mu jaar ci sama kaw jàll dama sonn ci loolu ah, mais ay nit bu ñuy liggéey dañuy liggéey pour avancer mais moom xoolul loolu jaaytaat doxaan rek la fi nekkee. waa doxaan nag bu ko tëgg. non dama koy liggéey ah te kër gi ah. ni nga ma ko liggéeyee ñaq dem bitim réew di ñaq ba tabax sama kër. après waaw sa xaalis ba mu wax bu fekkoon a jaar samay loxo. waaw ma fi. Mohamed non Fass dama wax sa jëkkër ji am ay wax yoo xam ne jarut te yëpp. jaru ko yéen a jëflante arrangé leen seen diggante. man li ma ciy duggee lu ndaw la. da ngeen a nekk ci weeru jéggale ci weeru ngëneel weer wi ngeen nekk muy weeru ramadaan baale ci yu mel nii day tax a yokk ay maqaam ndax bàcc nit ki la ameel te yàlla tax hmm. suñu borom nee na ëllëg yowmal xiyaam bis penc ba bis bu yëngatoo ba ñëpp tiit kenn rekk a fay mucc ci njàqare muy ki nga xam ni sii dafa amee woon bor bu mu lebal nit kooko nekk ci tiital ak njàqare ndax ñàkk koo mën a fay mu jëggal ko te yàlla tax mu ne kooku du bokk ci njàqare xoolal kon li ci suñu borom teg sëñ bi teel sa tànk rawatina ñu nekk ci weeru tedd wi te yéen ñaar yàgg ngeen liggéey te bu nit ñi xamoon leble te yàlla tax li ci nekk ci li ci nekk ci tiyaaba kenn xamul nu mu waaye nag buñ doon fay delloo si ko te yàlla tax dara du ko gën ndax loolu lépp day oyofal nekkub doomu adama yi ak nekkub jullit ñi kon nag maa ngi ñaan ci yàlla nga jéggal ko ndax jëmm ji dama koy wax fa Seydi Seydi Maam Alaaji Maalik la ma waxoon rek fala budda min saka wa ilallahi xurbati fa maa li xayrillahu jaabiri kusrati man de duma fëgg buntu këru kenn ku dul suñ borom ndax xam naa ni man si El Hadj Malick yàlla rek moo mën a faj samay dama dam kon yàlla rek mooy faj njàqare kii boo ko teggalee njàqare te yàlla tax dinañ doon loo xam ne suñu xol dana ci sedd ngeen balonte ax te jéggalante te kon seen liggéey ndax loolu dara jërëjëf Matar kàddu yi rafet na trop te ni nga ko waxee nii dégg nañ ko noonu ndax nag ñun ay jullit lañ te ay jullit rek la ñuy mën a doon li nga wax nii nag dégg ko rek laay mën a def amul leneen lu ma ciy teg jéggal naa la joxol bi sedd guy toppatuma ko dara alhamdulilahi ci laa war a tekki jabar ji boo ko mayee de mayu ko sawal non yow yow yaa ma yow yaa ma sonalew xaaj mu war a tekki Fatou mii nekk kër bàjjen ñu wax ba mu dee nga ne ma bu naaneem ndox nga jël bi sa may ko kee. ñàkk nga ko nag alhamdulilah googu man rek maa ko saxoo ndax bàcc mi su ma ànd ak moom yàgg na te xaalis bi ma ko yoreel mu dig fi ma ko dugal de si fi na laa ko dugal te tolluwaay boo mu am de su ma ñëwoon ci moom mi wax ko mu fajal ma ko ndax sama jiyaay toll si guddi yoo xam ne guddi yu métti yor location bu seer ay weer fayu ko ban yóbbu ko police xaalis bu ma yoroon. moom laa jël dem fayee ko ko ngir mu mën a génn ndax loolu tey ma ko defal su ma ñëwoon wax ko bàcc mu fajal ma ko kon bàcc sant naa yàlla bu baax a baax a baax bor bi nag ah nii la mën a demee xañu suma diggante yow